làmb waaw loolu sax lool ay at a ngi nii ñëwuma ci. loo ci gën a namm làmb. événement bi xam nga ambiance bi bala ngaa xam njariñ li rek nga sori ko quoi. yaa nga demee noo ko daan dundee nga daan comme ni nga def ni ñëw ci làmb nga dem mënatoo ñëw ci làmb da ngay toog di ko seetaan PPV naka nga gisee lamb ji. Euh, like des fois nga seetaan ko doo bëgg lu dugg ci biir téléphone bi yegg ci biir làmb ji. ambiance bi xam nga ambiance lamb benn ambiance amul feneen ñun ñu si ne nag des fois duñu xam njariñ li quoi mais boo demee ba sori ko bëgg cee ñëw mënatoo si ñëw di xam lan mooy njariñ li moo tax euh, nañ ko gën fonk ko gën a fonk gën ko defaraat. nga daan takk ngemb di bëre boo toogee foofu gis mbër yi takk sa takk jaaj yi rango sër nekk ci digg lu mu lay fàttali. waaw yaram bi day xasan rek yaa gën a xam xam nga xam nga mbër moom. liñ koy wax du màgget ay maasam ñooy jeex waaw doo bëgg lu xam nga ñëw sumeeku defar gars yi bëgg a daw ne da la jox avance da doon kaf wala boog naka la demee noonu parce que maa ngi naan est-ce que yanda ba nga dem bu bëriwaat. bëriwaat euh, du lu gëm loolu quoi mais nag incha allah dinañ ñëwaat si lamb ak beneen méthode mooy euh, fi ñu jaar. Euh, ba suñu carrière arrêté ñu fexe ba protéger suñu raq yi ba duñu jaar foofu ndax soo xoolee làmb daanaka 4 ans ou 5 ans mu ngi nii ñëw ma te ñii ma ci bàyyi woon ñëpp daanaka fi fi ma leen bàyyi woon fa lañ ne ba léegi góoram yi kenn du werante ni champion la combat bu ne bëri na ko mais durant 4 ans yi ma wala 5 ans benn combat la ci bëri war a kon bu ñu nee làmb mi ngi dox dañuy nax suñu bopp te ñun ñëpp kenn ñëw si làmb pour ay amateur pour génn nii wala diw ak nii loolu dox man boog personnel doxuma fee ñëw ay borom kër lañ ay responsable lañ bu ñu demee fi ñu dëkk ni ni maire yi mel wala ministre yi mel wala sëriñ si mel ñu ñun noonu lañ mel fi ñu dëkk nit ñi bu ñu jaaxle dañuy daw ñëw si ñun kon du ay n'importe qui xam nga li ma bu ñu dugg ci làmb nag pour di avancer moo tax bu ñu nekkoon fii ren bu déwénee ñu dem fi ko gën mais soo xoolee ku lañ la làmb ji au fond mu ngi dox da lay nax. ban solution nga ci mën a apporter solution yi mooy mbër am fu la valoriser seen bopp gis nga jamaa sax boo ko yoroon te valoriser woo amul njariñ mbëri yi ne ci kaw nekk ci bopp bi ñoo waraam a am fulla ak xam ne daa am ay millions doomu aadama yoo xam ni seen kër si ñoom lañ ko yaakaar xam nga li ki ànd ak ñoom ñu ànd ak yow ku àndul ak yow ku àndul ak ñoom ñu bala loolu mooy fulla loolu mooy fayda mais nekk ci écurie plus de cent mbër nekk ci yow kese ngay bëre nga ne làmb jaa ngi dox da nax sa bopp làmb ji doxee ci sa côté dong la doxee. exactly lamb ji boo xoolee ay 2012 2010 jëm suuf écrit bu ne di nga fa génne 20 booy 20 booy wala wala wala 10 tey boo génnee écrit écrit Papa Sow bii wrestling bi amul benn écrit booy taxaw génne fa ñeenti mbër ñeenti mbër yoo xam mën nañ fay ko 5 amul écrit boo ni diw ni diw doo génnewaat ñeneen kon buñ ne mu ngi dox dañuy nax suñu bopp lamb ji doxul pour mu dox nag gis nga Tyson ba mu fi nekkee gis nga ba Tyson nekkee ci bopp dafa valeur ba léegi làmb ji changé wu li ñu doon taxee ngeem la ñuy taxee ngeem li ñu doon bëree la bëree mais li si changé rek mooy tête fil yi nekkoon ci kaw Yanda bu waxee am na ñoo xam duñ ko déglu mais tey bu Balla Gaye waxee wala Modou Lo wax wala Bombardier wax par force ñu 90 pour cent yi nañ leen déglu comme ñoom ñu ne ci kaw dañu valoriser ramb ji xam nga li ma la wax benn licence su boo ci amee fulla ak fayda faale am licence ku am bac plus nangam faale woo ndax fu mu taxaw lijjanti ay problème am yow nga taxaw fi ci wet lijjanti sa problème te doomu aadama amul lenn lu loolu mooy nga am sa soxla faj ko mën a dimbali say mbok ak say xarit amul leneen dundam. mais boo ñëwee ci stade bi nga gis ko sox jaxan gis ko sa bala jaxan naka nga leen ñaar. Euh, combat la combat la neex sax. ñaari champion tamit ñoo daje ndax de góor moom buñ xasee ba ni góor ak diw la rek nekkatul lamb joo xam ay caaxaan la Fils de Balla champion la góor a la mais nag ñu ngi ñaan ñu ngi ñaanal yàlla góor a ndam ndax suma rakk la suma xarit la dama koy wax chaque jour ñu ngi koy ñaanal ndam la laaj kan nga faral mais boo gisee kii di Fils de Balla effort bi muy dégagé la est-ce que doo am loo xam tuuti ci moom non dafa évolué xale bu évolué xale xam nga tey bu ñëwee bay bëri góora wala di bëri keneen wax dëgg yàlla évolué na mais nag li ma gëm man ta jàpp ko mooy góora du ma romb bu ñu taxee combat waru def une minute a jeex kontaan naa ñoo far champion